ndax sëñ baaba mi nga xam ne moo waral bis bi mooy am na ay baay am na ay mag am na ay rakk waaye maamam moom la joxoñoon sëriñ bi moom la joxoñoon sëriñ Touba moom la joxoon aw turam sëriñ Touba moo tax sëriñ Touba tànn ko ci biir njaboot gi woolu ko ba mu ko woolul ba mu ñëw ba mu ko laajee maamam gannaaw ba mu ko laajee maamu boppam dana ko sa maam de moo nu booy ne lii bu nu dajee naa la ko jox kon liit man maa la ko jox noonu la sëñ bi ci gàttal rek noonu la doxee sëñ bi te sëriñ bi moom lépp lu mu laal moo gën lu mu laalut ndax fii leer na leen fii ci bawal laata sëñ bi feeñ lu na xew na fi ginnaaw bi fi sëñ bi feeñee feeñee lu na xew na ci waaye mboolem koo xam ne kii gis nga sëñ Tuubaa ak bët yaa gën ko gisu sëñ Tuubaa ci bët kun fi man toppit di la rang du sag wilaaya du sa dara sëñ bi rek la ñi lay topp sax ñoo la sut àllu ba waaw bari na ku lay raamal te ka lay la sut àllu ba gën laa jege suñu borom waaye nag yow mi raam xooloo ci moom dara dégluwoo ci moom dara gisoo ci moom dara sëriñ Tuubaa rek ngay xool ci moom kon lépp lu fi man nekk rek mooy sëriñ bi la waaw sëriñ tubaa rek la waaw sëriñ Tuubaa ndax Euh, dégg nga Moussa di ko wax naa di fekk ku ñëpp xeeb ay cosaanam mu fuut ko ba mu set tafal ko mbooloo kon kay sàmm kay fecc ak ka yor daara la sëñ bi yemale sëñ bi moom képp ku dem ci moom rek mu jox la loo xam ne boo demee say bokk topp la kon yàlla nañ suñu borom gën a doolee dimbali xëyru ci sëñ bi te yàlla bu mu fekk ci lu ñuy tere te lépp lu mu digal yal nañ ci yàlla suturaal ba nekke ca loola kon ñu ngi santaat bu baax a baax a baax bis bi nag ah comme noonu ma wax sëñ Tuubaa moom lu mu def moo gën lu mu kon ku ca dem rek jàppal ne sëñ bee tax nga dem ca waaye du moom waaw sëñ tubaa moo tax nga ñëw waaye du keneen tax nga ñëw kon fii raama ci ba wala sëñ Tuubaa sa doom wala sëb sët saa yëkkatee mbagg wala muy woote leneen lu dul loolu daa xamut waaye ba mu doon tën ba nga sëñ Tuubaa feeñu tan ci moom kenn boolewu koon ci dara waaw ak ku man doon rek ba sëñ bi feeñugul ci yow dara nekkul ci yow bi sëñ bi feeñee ci yow rek la dara nekk ci yow kon waroo feeñal dara lut sëñ bi kon yal nañ jàll dimbalee xiir ci sëñ bi te gën noo teg ci siraata mustaqim te sunub yëngu ak sunub dal mooy sëñ bi rek kon ñu ngi santaat bu baax a baax a baax di sant taalibe yi ndax it sëñ na ko nee na li fi nekk taalibe yi la kon lu fi nekk rek mooy taalibe yi kon ñu ngi ñaan sunu borom gën noo boole ak taalibe yi te saxal ci ak jub te yokk wërsëgu taalibe yi te sàmmal leen boppam ñu ngi koy ñaan ci barkeb sëriñ bi barkeb Cheikh Baba barkeb sëñ Sidi kon son soxla dina baax a baax a baax a baax sunu xol sedd na baax jërë ngeen jëf yal na yàlla sàmmal leen sëriñ ak ndaw yal yàlla sàmmal leen sëriñ ndaw ci barkeb sëriñ bi suñ xol seet na baax kunta bégg na baax a baax yow yow lépp nga yow lépp nga ci man lépp nga ci man ñu ngi ñaan suñu borom dafa la tawfiq ak tayseer barkeb Seex Baaba kon bu la yàlla doxalee ba nga wëlbati ko yem ci kon am nga ci cër moom ma dan leen sa ko wax moom ma du saxeer waaye pas-pasam ak ngóor-góorlu ak ak njàmbaaram dem na ban di ko wax ustaas mi ngi dëkk Njomba waaye maam cosaanim mu ngi nekk Mbool làmbaay wax naa la ne la maamam ci biir kë sëñ baaba la nekkal bokk na ci ñi sëñ baaba taam woon ñi sëñ baaba doylu woon ba sëñ Moustapha Mbacke premier xalifa sëriñ Touba bi mu ñëwee ci sëñ baaba moo maamam mii la ko boole la moom sëñ Saxeel Jaañ maami sëñ Saxel Jaañ mii la ko boole kon bisimilah sëñ Saxel waaw ci gàttal mm. maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp nuyul ci jiital ci nuyoo bi sëriñ Babacar Ndiir mi di sant yàlla bu baax ci teew gi ñu teew ci barab bi di sant yàlla yit bu baax ci ñëw gi ñu ñëw ci bis bu tedd bu màgg bi muy bis bu ñu fàttalikoo jàmbaari islam muy Serigne Babacar Ndiir nga xam ne njëkk sëriñ Touba di ñëw jamono maamam maama Ndiir Faaboy bokk na ci góoru yàlla yi nga xam ne histoire du leen fàtte ndax boo déggee ñu wax dëgg ak faxa jóob ga maama Ndiir Faaboy moo ko waral ndax ba nga xamee ne ca Yaasin doon na xare te naar ba wax leen ku jëkk ci barabu bàmmeelu maama Ndiir Faaboy yaay gañe bañ ko fa jiitoo bal ya soqi mu daw ba fu ñu wax xay jaw ba mu ne gees di laaj ki mu doon xareel faxa jóob ci la ko ne yaa ko gën a gis ki la ay bal ba nga agsi fii neen loolu moo waral ñu koy wax dëgg ak faxa jóob ni ko sëñ Mbay waxee nag suñu maam maam Babacar Diouf mi meññ sama wajuru jigéen moom mu ngi tudd woon saa kura njéeme la tuddoon sëriñ Baba moo ko tuubal dugal ko ci islam tudde ko Babacar juuf mu bokk ak sëriñ Aliou Diouf Lambaye nag ndax Birima Joor ak Birima Latin Ndiaye ñoo bokk genn gi ñoo Birima Joor jur Samba Xaar Birima Birima Latin Ndiaye jur Samba Xaar Samba Xaar jur Babacar Diouf Birima Joor jur sëñ Aliou Diouf Lambaye kon noonu lañ demee ci bokk waaye nag moom ci wàllu boppam bi nga xamee ne euh, ku ñuy wax Max Maxtaar Ngoy xam ne nekkoon na chef de Ngoy bi mu jiitee Ngoy def koo faloon mu nekk fële ca Kaba ci ba mu demee nag ba leeruk islam tàkk ci moom Serigne Baba Ndiir ci boppam moo ko dugal ci islam tudde ko baaba kër Diouf mu bokk ci yax boo xam ne bu rëy la waaye nag ni mu ko waxee mbooltaay googu la Fatim Ndeela Taay mi ko jur mbooltaay googu la dëkk foofu la bokk fee ñuy wax mbuubaan mooy dëkk kër baayam waaye mbool mooy kër mooy mooy kër ndeyam ndax Fatim Ndeela Taay mi ko jur mbool la jógee kon noonu la demee Daaru Salaam gii nag ci wetu uh, Mbusa bi nga xamee ne sëriñ Mouroussa sanc na ko sëriñ dafa waxoon dana fi andi ku leen xamal yàlla sëñ baaba ne ko danaa leen boole koo xam ne mën naa jëflanteeg ku mu doon fop maam Babacar Diouf mu dëkk fii Daaru Salaam nekk fi ak góor gi Mbay Guèye mu nekk mu nekk fi ci ndigal sëñ Moussa noonu ko sëñ Mbay waxee bi fi Cheikh mu Moussa ñëwee Bawol fii di gane fii la njëkk fii la njëkk a wàcc muy Daaru Salaam googu jóge fa jaar fii nga xam ne moom la ñuy wax Daaru Mbaw moom Cheikh Mamadou Moustapha kon ànd bi ñu ànd ak mbuso lu yàgg la islam na ku la ci dugal jëlee la ci lëndëm ak euh, kéefër dugal la ci leeru gëm yàlla kooku defal na la loo xam ne dara gënu ko rëy dara gënu koo màgg def defit mënu ko gën a moo tax ñun ak cër bi ñu am fa nu dëkk ak nañ fa demee bu ñu ñëwee mbusa dañuy jël cër boobu jiital ko ndax sunu wajur wu jigéen fi mu ne fee mu toog ne xelam yëpp mbusa nekk démb rek mi ngi wax naan moom man màggal ak ba bàyyi ñëw te naru maa dem busa nii waaw dal ne àdduna rek a bon naru maa dem busa kon wax dëgg yàlla xelam ak xolam yëpp mi ngi fii moom nag dafa nekk koo xam ne moom moom moom maam Babacar Diouf dem na ba aw kër ndeyam aw askanam am na ci ñoo xam ne ñëw nañu jox ko seen bopp ngir diggante ak sëñ baaba jaxasoo gum jaxasoo ak sëñ baaba waaye képp ku mës a gaara loolu ci moom dalay wommat ba ci sëñ baaba ne la man duuma sëriñ sëñ baaba mi mooy sëriñ bi kon bari na tey jii ñu nekk ci ginnaaw ñi sant ndiir ginnaaw yàlla moom moom moo leen womat ba ñu ñëw ci ci ci suñ baaba loolu yàlla mayoon na ko ba ci sama maam mbay géey ma ndongo géey mee nekkan ndakaaru nga xam ne maam ndongo géey wajuróom euh, maanaam maanaam moom ma Babacar Diouf dañoo bokk dañoo bokk wenn wajuru jigéen te bokkuñu te bokkuñu bokkuñu bàyyi moom it moo ko womat ba indi ko si suñ baaba ak ñu bari ci ci bokki mbóol yi kon ànd bi lu yàgg la sëñ bi noo lay siyaar bu baax ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci bis bi sa wajur di sëriñ siidi ñëw naa fii mu yëkkati kaamil boo xam ci kaamil sëriñ baaba la na ma kaamil bii ci kaamil sëriñ baaba la jël ko nga barkeeloo ko ba léegi kaamil boobu mi ngi man saa su ma fi masaana ñu duñ ma xoole samay at yu néew dañ may xoole jëmmi sama maam moom lañ may xoole maam yu ti noon na ma diggante sëñ baaba ak sëñ baaba ak Babacar Diouf de nee na nee na ku yàlla xamoo diggante boobu nee na daal ni mu koy misaal mooy diggante Babacar ak yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi kon nag diggante la boo xam ne su ma tabbee ci pun pencam bu sa sànq bi may ñëw rek soxna si daf ma boo demee lii seetal noo ko noo ko noo ko ma ko joxee la addi addiyee mbusa daal ne ma nag solo yére bi la sëñ Mourou ma ko fa joxoon mm. ndax foofee nga jëm mm. waaye nag boo demee na xam ne fee mooy saa dëkkëb mooy saa dëkkëb kii de gis nga ko waaw nga xam ne maanaam moom dama koy dama koy faral di tooñ sax naan ko dafa mel ni yow sëñ baaba rek nga jàpp ne mooy waliyu mm. waaw ndax day toog naan daqaar sàngam jinne jafa nekkoon sëñ baaba nii sëñ baaba naa moytu leen daqaar sàngam nangam nanga fa di nga xam ne yim ciy nettali day nekk yoo xamante ne nii day wane rek maanaam moom ne euh, gëm gi mu gëm ak fi mu bokk ak fi ko yàlla andi ak cër boo fa nekk fàttewul fii fàttewul fi kon nag sëñ bi ñoo ngi lay ndokkeel bu baax ndokkeel njabootu sëriñ baaba yëpp jiite sëñ mat mi nga xam ne moom moo nekk ci bopp kër gi di ndokkeel mboolem ay rakkam ak sët yi ak ak taalibe yi ñëpp di ñaan yàlla na ngeen ko yàgg woote yàlla na yàlla nangu lépp ci barkeb sëriñ baaba sëñ baaba ko nitu yàlla la woon koo xam ne mbiru àdduna mos ci bëgg dara sama wajur da koy wax day wax ne bi élection masaan jot da koy woo Babacar mun a mën ko jëlal kayit woowu carte woo boo dee yaa xam foo koy dugal ne mosut a wuy jub woote mosut a wuti wuy mbiru mbiru àdduna kon nag ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal yàlla na suñu kaddu def mu di yiw ci àdduna ak alaxira waaw awfu bil ahdi innal ahda kaana mas'uula kon yàlla moo sàmm moo digle ñu sàmm kóllëre kóllëre gi incha allahu taala dañ koy sàmm ba bañ bañ leen di fekk yàlla na yeex wasalaam wa maa zaalika alallaahi bi aziiz